Eh, wa population an yep commencé montagne 6 ba ba ca kaw ba rombu centre de santé bi nox loolu yep ci yarax la bok be de an bi yep ma ngi nuyu ñep di sante ñep di wax rek ni que dafa am fan yi ben feebar bu xew bu génn ci dëkk bi mu ngi génnee côté tiaro yi na le nak ci kaw waaye comme ñun lu ne caaro sur mer ne yarax boo doxee sax génn caare dugg yaraax donc ñu trouver nécessaire que ni war nañu waxtaan ak suñu population par rapport ak feebar boobu ñu muy manifesté woo du dara lu dul ay bët la yuy xonk day manifesté wu comme wànnent noonu lay commencé bët yi day xonk cuur di métti nit ku du mën a xool du mën a xool ci naaj bi ndax amoon naa ci benn cas yee ci ginnaaw noonu la ñëwee woon mais bi ma demee démb bërki démb sur le terrain xaw ma démb fekk naa ko yematul ci bët yu xonk picc yi commencé feeñ ça veut ko kon noonu lay commencé bët yi day xonq cur def comme wànnent bu demee ba benn fan nga mën ngaa fanaan bët set nga xëy sax picc yi commencé génn au niveau péribucal mooy booru gémmiñ gi day génne ay picc booru bakken yi day génne ay picc jëbi nii kanam gi jàpp ba ci loos bi dina jàpp loxo yi tamit ci kanam ci ginnaaw yi yëpp da koy jàpp dina jàpp tamit yii am na ci ñoo xam sax dañoo toog yeneen yeneen zone la daal ñu neen maa ngi déglu ñuy wax ni que mënuñ sax dem ndax mënuñu dox ndax dafa jàpp seen yi donc diggante poo ci koo ci toog sa kër dem géej ñëw mool boo dendal wala xale boo dendal mag wala ndaw muy mool dem na géej ñëw na seetlu na ne bët yaa ngi xonq commencé na génne ay picc muy toj feneen di jël gaawal nga dem ñëw ci man fii ci poste de santé bi dinañ la faj te doo fay dara hmm? am na ci quelques yu ma am demoon naa sur le terrain démb faj naa leen may naa leen ay garab dañ koy jël te ñu ngi tane incha allah dinañ tane bu baax. waaw situation yi nag ci ay cas mi ngi amee montagne 6 trois cas rek la bëriwuñ fa yaa tey ak tey ki ma am muy un quatrième cas te ñooñu ñu doon dem géej la dañu demoon jusqu'à hauteur de Anne ba auto de euh, Thiaroye-sur-Mer dem nañu ñëw ñañu dëkkal sax amuñu ko donc mën naa ci jàpp sax ni que xëy na du luy contaminé xëy na wóoruñu wóor na wóorul xamaguñu waaw ñu moytu daal moo gën. ñooñu daal xam naa ne ñañu dëkkal am na ci ñi ñoom ñi ko fa ñi ko ñi demoon ci géej gi ñoo ko am ñeneen ñu dëkkal sax nekk ak ñoom di fanaan ak ñoom deew ñoom amuñu ko ba léegi ñoom ñooñ ñoo ko fa am te ñooñ dem naa fa jox naa leen ay garab maa ngi leen di faj maa ngi leen di suivre jox naa leen sama numéro téléphone ak yëpp pour bu fekkee ñañu dëkkal dañ ci am yeneen cas wala déet waaw loolu daal laa xam ne moom laa ci am muy ñetti cas yooyu pour le moment sama zone voilà ak ak quatrième bi ma am tey voilà yàlla baax na espérons ko du yokk waaw leeraguñu ndaxam am day wàlle wala du wàlle comme leeraguñu ndax am day wàlle wala du wàlle mieux vaut ñu bañ a ñu moytu comme xamuñu ndax day wàlle ñu moytu daal moo gën n'est-ce pas ñi ko am bu ñu mënee toog seen kër yi ñu toog ñun ñu fekk si leen faj leen sinon ñi ko am bu fekkente ne gis nañ signe yi commencé na ñu ñëw ci poste bi man yaakaar naa ne du luy wàlle yaakaar naa ci li ma foog parce que ña ma jot am fa leen fekk ña ñu dëkkal amuñu ko ñoom ñu demoon ci géej gi rek ñoo ko amagum pour le moment waaye daal nañu moytu daal géej gi pour le moment fan yi guddi yi message boobu laa ne woon naa ko jàllale di ñaax tamit xale yi ci école yi dem naa école montagne 6 A ak B dem naa école monsieur Sagne dem naa école monsieur Diong mooy école yi nga xam ñoo dend ak géej gi sensibile naa leen wax naa ak seen directeur yi pour ñu ñaax xale yi pour ñu bañ a dem moytu géej gi le maximum possible lu ñu ko gën a mën a moytu mu baax mool yi itam def nañ booru tefes gi yëpp dem ba ñaax nañu mool yi pour lu ñu gën a mën a moytu géej gi moo gën ku ci demit boo ñëwee boo amee yooy gis signe yooyu ma la wax nga daw si ñëw hôpital ñu faj la def ci yow li gën message bu la boobu laa ne woon naa ko jàllale lu bees la lu fi xew xamaguñ sax réellement lan la exactement mais daal nañu moytu waaw fagaru daal moo gën faju lu ñu gën a mën a moytu géej gi mu gën a baax loolu laa ne woon naa ko jàllale comme